ngalax di ab baaxantal ci diggante eh, chrétien yi ak musulman yi fii ci réew bu Sénégal ni ki ren sax ñu bari ci ñooñee di chrétien yi boo moyuwul nag duñu ko amal li ko waral nag bokk na ci jafe-jafe mbas mi. dund bi métti na métti boo xam ne amatoo kattan bi nga daan defee lu bari ba mën a jox ñëpp sa xarit ak say àndandoog say dëkkaale ñëpp ñu bokk nañ ci ñi yalwaan sax da leen ci daan may. Mhm. mais fi nekk nii boo ko defee tey jii tuuti ci sa kër lay doon mbaaxantal sa koñ lay yem mbaaxantal parce que gouvernement bi jox nañu quarante mille francs CFA na ñu jàppale ñu waaw ja quarante mille francs boobu tuutiwul ndax ku la bay dërëm may na loolu lépp. bu ñu sukkandikoo ci soxna si naam sax ay jafe-jafe ñu ngi koy nemmeeku jëm ci wàllum koom-koom waaye nag teewul ni ki ren faw rek ñu amal. lépp lu aju ci wàllum ngalax gi. daaw ngalaxuñu ren moom foog ñu ngalax ndax suñu wax dëgg suñu voisin yaa ñuy xaar tey ci suba rek sama benn voisin nag may woo téléphone naan ma foo toll ci ngalax bi yaa ngi araw ma ne ko man de je suis fu mu nekk ni aw ma sax ku ma jàppale mu ne ma ah ren moom di nga ngalax xaw ma kan waaye boo ngalaxun pour koñ bi sax man di ma jox sama ngalax parce que man sa ngalax rek laay xaar du ma naan beneen ngalax bu dul sa ngalax. ma ne ko yow moom di ma tax a yow yaa may tax a yow rek yaay tax ma ngalax naru ma woon ngalax ñu bari ci chrétiens yi nag dañuy amal boobile ngalax ngir rataxal seen diggante ak musulman yi li ni mel sax nekk ab tradition bu yàgg lool fii ci réew bu Sénégal la